waaw li ñu mën a wax rek mooy euh, ñun sax dañoo nekk très mal à pour wax ci ndax euh, propos yi euh, kenn mënu ko imaginer ndax président de la république ku ci nekk xam nga ni li mu def seen Casamance kenn defu ko président yi fi jiitu yëpp amul kenn koo xam ne def na ci ay jéego donc bu ñu demee bay commencé yaakaar ci Casamance ñu gis désenclavement bi fa am bu ñu déggee propos yu mel nii ñun daf ñuy jaaxal waaye li ñu mën a wax rek mooy. Sénégal war nañoo xam aussi ñan lañ ko sekkal ndax depuis quelque temps ñu ngi dégg kàddu yooyu nga xamante ne day dem ci waaso waaye day dem ci li nga xamante ne day yàq jàmm ji nga xamante ne moom moo yàgg am Sénégal ñëpp a ci war a jóg nag taxaw artu ndax nag intérêt benn nit warul tax ñu yàq lépp li nga xamante ne moom mooy téye Sénégal looloo tax ñu nekk ci jàmm looloo tax ñëpp naw ñu kon sénégalais ci seen bopp dañoo war a jóg taxaw. rawatina nag képp ku nga xamante ne doomu Casamance nga ndax nag Casamance yi dañoo dund crise bi 40 ans donc ñun xam nañu jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci dund situation boo xamante ne staabulul donc Casamance yooyu ñoo war a nekk tey le bouclier et xam naa ni majorité bi ànduñu ak Ousmane Sonko li mu wax parce que ñun constaté nañu gis nañ jéego yi président de la République def gis nañu. ni mu désenclavé Casamance boo jógee fii dakaar euh, bu la neexee nga dem añi sa kër foofu en Casamance donc mënuñoo comprendre discours yoobu mais sénégalais yi ñoom ñoo war a am vraiment seen détermination fexe ba kenn du ñëw yàq li nga xamante ne moom moo euh, moo yor Sénégal te nag mu ak bépp boor bu mu féetee parce que dégg nañ ko ci Ousmane Sonko mais dégg nañ ko si ñeneen tamit donc loolu nag ñun ñëpp dañ ci war a nekk ferme. bu ko defee loolu mooy protéger suñu dëkk buñ ko caaxaanee.